ñu ñëw ci jàngaleem Sëriñ Tuuba ci fukkeel bi am na gàmm goo xam ni Sëriñ Tuuba xaadala maxtaaloo dani nañu yéene ni gan yi diggante buntu kër geeg jàkka ji tibb fi yóbbu doy na tàggoo tibb fi suuf xëy na Sëriñ Tuuba xaadala wala maxtaaloo am na tëju boo xam ni ba mu koy def ak gaal la jël def ca juróom benn fukki dërëmi ngordu ak juróom benn wax ku ñuy wax Muusa Gay radiallahu taala anu ni ko teg ko foofu ku fi ñëw te xam ni maa ko taxoon a jug lu mu yor na ko ci def wér na ginnaaw bi sëriñ tuubaa xaada loxo la maxtaar loxo jébbalee sëriñ aafiyatu radiallahu taala anu jàkka ji daa wax sëriñ isaa radiallahu taala anu ni ko suba gu nekk nañuy xëy si su ko defee bu ñu dikkee danañu yendu ba ñu julli gee bu ñuy dikk ak bu ñuy dem lépp dañuy dajje aw sàkket keneen daajaat ci ndigalal sëriñ bi booba itam daa soppi li tàmbulee ca penku ba ca soow foofee la nekkoon ak juróom-ñeent ñooña nga xam ni sëriñ Isaa moo leen fukkeel radiallahu taala anhum waxtu wu mu wax sëriñ saalihu loo radiallahu taala anhu nee leen nañu ñëw ñu julli am na bis mu julli ba noppi wax ni fii mu ne kat julli war tuma cër yee ko miin ba bu waxtu jotee ñu yëngu jëm ci ma topp leen ci waaye war tuma wér na lool ñu ñëw ci njàngalem fukk bi ak ñett sëriñ tuba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo nee na sama lépp xar baax la tongu gi ma tong tong mooy ñanaaw ni muy def naa leen dama ni ngeen ni haa moo njëkk di xar baax wér na lool man li ma jàpp doonte baat yi am na lënt ci man mooy daa bëgg a wax ni sama lépp yéeme na waaye li ci jiitu mooy toog gi ma toog di leen digal ngeen di ko dégg di ko nangu walaw alam sëriñ jaasi siise radiallahu taala anu mas naa wax sëriñ tuba xaadala wala maxtaar loxo dañu la matul ay taalibe moo tax duñu xam say wax sëriñ bi bég ba jox ko am mbubb wërna lool ñu ñëw ci njàngaleem fukk bi ak juróom ay naar mas ñu wax sëriñ tuba xaadalaw la maxtaar lo xana doone nelaw guddi mu ni leen neewuma duma ko def sax waye sakuma fu ma koy nik nik moy xaar wërna lool sëriñ tuba xaadalaw la maxtaar lo neena na dem tuba jërul taggo. mbedd mee gudd mbedd mooy e yoon waaye penc mi menn la wér na lool sëriñ tuuba xaade la wala maxtaar loo bi muy bëgg a làqu jëndalu na téeméeri toogukaay teglu ko ci xay gi ñu wërale ko ba mu daj mu ni alxawrul aynu mooy jigéeni àjjana ak ahlu badrin radiallahu anhum dañu fii daje cheikh ibrafa radiallahu taala anhu andib néeg sëriñ bi ni nañu ko samp foofu néeg boobu jàng nañu fa jësbul xulóob ak mawaahibu naafi ak muqaddamatul amda am rum ak rumna shukura bi ñuy jàng rumna ba sëriñ mohamad lamin joob radiallahu taala anhu àggee ci katabtu fil bahri anni la amudu yadi ila nasara abidi almaai wa tiini sëriñ bi ni ko taxawal daa di leeral lu bari ci diggam ak tubaabi ak xaalis bañu ko daan jox ba tax mu wax loolu wér na lool sëriñ tuuba xaadalaw law maxtaar loo bi muy dóore ñëw jolof kilifa ga fa nekkoon daa dajale jolof gépp ni leen lu yàgg-yàgg bu fi kenn sarax ab taalibe sëriñ bi dajale taalibe yépp ni leen lu yàgg-yàgg bu fi kenn yalwaani wér na lool booba àll bi bari lool ay mbëtt ci la taalibe yi daan jëfandiku sëriñ bi képp moo ci daawul jëfandiku li nak sorewul ak lañu defoon yonente bi sallallahu taala alayhi bi ali wasay bi wasalama ca makka ba mujj ñuy ay der di ko jëfandikoo alam am na ku way juram yónni woon ci sëriñ tuba xaadala wala maxtaaloo hadiya bi ko bi ni ko demal ko demal tibbu tàggoo foofu xëy na suuf la ko jubloo wax mu tibbu ba noppi di dem bi ni ko bismillah da ngay dem te ko kii gën a gaaw a doylu wér na lool am na ak fajar sëriñ tuuba xaadalaahu laaw maxtaaloo génn ci jàkka ji ñëw ci bunt bi sëñ bi dafa woo sëriñ caayaaku ni ko demal waaye wool ma sëriñ mirina silla ak sëriñ mañaaw silla ma woo leen ba ñëw sëriñ bi ni bismillaah daal di yegg suuf bi may dellu sëriñ mirina daal di téye ci sama mbu ni kii day day doom joo xam ni dañ ko jural te mëne lu ñu ko dara ñu bëgg ku nu ko dimbalil sëriñ bi siggi xool ma ni ana moom ci gone yi waxinam la sëriñ miri na ni ko doomi madu maam faal jaaraa sëriñ bi ni ana doomi muxtaar faati ji mu fi nekkal muy mataar xañ mi ma ni ko mi ngi fi mu ni ma demal woo ko te dikk ma dénk leen fi seen yaari mbokk yi ma dem wa Matar nu dik ag suuf serigne touba xaadalawo law maxtaarlawo ni dama ni fi bu doon ku fi bëgg dik dik bu ngeen fi dikkee du ngeen fi xaj ku fi dik rek dañu la fee andi de ngeen ko ñu ni waaw serigne bi ni kon nag bu ñu leen fi andee ngeen dik fi su ma leen digalee na ngeen ko def bu ma leen tere na ngeen ko bayyi bu ngeen defee loolu bu ngeen bàyyikoo fii fu ngeen dem ñu bari jël ci yéen jël mooy roy bu ngeen ko deful kat li ñuy wax gaay demba te gaay demba gor su ne war na ko wattu tàlla leen seen yoxo ma ñaanal leen bi mu ñaanee ba àggal sëriñ miri na ni nun mag ñi ci lan bokk ba faawu wér na lool lim ni gaay demba xëy na da koo dog ngir barkeerug làmmiñam ak bañ ñu koy def wallahu aalam sëriñ tuba xaadalahoo law maxtaaloo mas naa génn bis sëriñ abdurahman siise radiallahu taala anhu daw ba agsi sëriñ bi ni ko abdu yow ana looy waaxu mu ni ko damay diglu si waxtaan wi sëriñ bi ni ko tuub ko man duma waxtaan damay jàngale mu ni ko kon damay diglu si njàng mi wér na lool man xaadimul xadim maa ngi tuub li ma masa wax lépp waxtaani sëriñ bi te koy tuubal murid yi walaw alam ñu ñëw ci kon njàngalem sëriñ bi ci ñaar fukkeel bi ak benn sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarlawoo bi muy nekk ci waaj am na bis sëriñ Mad Lamin Gay radiallahu taala anhu siyaar si ko mu ni ko kooku Mad Lamin mu ni ko waaw mu ni ko ñëwal dellu Tuubaa lee ngeen am gan wér na loolu mooy ñibbisig sëriñ bi ci tuuba wallahu aalam am na naar bu mësa jàngal sëriñ tuuba xaadala wala maxtaaloo xasid ak assindiidi ba mu jeex mu teg ca lii wa jullu qaari'ihi min indi qaa'ilihi burdan jadidan yaqiihi lbarda yallahu sëriñ bi jox ko am mbubb ak mbàjj siiw na loolu mu wax ci way wi day mel ni ku yalwaan am mbubb walaw alam sëriñ tuuba xaadila walaw maxtarloo ca gànnaar mas naa wax dama bëgg ñu wàññi njël li ragal njël sax taxut ndax gànnaar gépp mën naa leen a reggal ci cereeg ndawal ci sama loxo bu tuuti bii waaye daa am malaayika yoo xam ni dañuy indi reerub leer te ku ñu fekk nga regg reer duñu la jox ci reer boobu wér na sëriñ bi dañuy xamal ni lu nu gën a ak lekk ak waxi caaxaan di gën a bari ay leer walaw alam am na bis ñuy liggéeyal sëriñ Tuubaa xaada lawo law ba mu yàgg mu ni mbàkke juuf mu ñëw mu ni ko dandu sil mu dandu si sëriñ bi jàpp ci noppam ni ko mbàkke lii baax na lool mu ni ko baax na lool serigne touba xaadale wala maxtaalo ni ko boo gisee kenn ku dikk ci jamono fekk jamono jëpp maase ci menn mbir mu ni leen da ngeen bàyyi lii ngeen nekk fekk si ma ci lii ma nekk ku ñu dee rek ka ko ñeme dee mooy ku ñu xamal lu fàddu ku ñu deeyul ñemewu ko wér na fala yusru ala gaybihi ahadan illa man irtada min rasul wallahu alam ñu ñëw ci njàngale mi ci ñaar fukkeel wi ak juróom sëriñ Tuuba xaadalawoo law mas naa wax sëriñ Mahmoudan Touré radiallahu taala anhu demal seetal ma diw daldi tudd turu seen soxna ba xam dugub jañu fa joxe woon jeex naam jeexul mu jug di waaxu sëriñ Tuuba xaadalawoo maxtaloo maxtaaloo ni ko kaay boo demee boo ko nee sëriñ bi nee na sa dugub ji jeenaa du la wax déet bu jeexee it du la wax jeena da ngay fexe ba xam ko te bañ ko ko laaj mu dikk fekk ñu lem saako ba teg ba mu ñëwaatee sëriñ bi xaadaloo laaw maxtaaloo ni ko na nga def mu wax ko li mu gis sëriñ mi ni ko boo demoon ni ko jeex naa dana la déet jeexul fobal saako boobu yet leen wér na nu xam ni sëriñ bi li muy bari le taxul muy def lu mën a ñàkk war nañoo xam ni ni fen xaraame ak jëw ni la yàq xaraame wala alam am na ku masa ñëw ci sëriñ tuuba xaade lawo wala maxtaalawoo ni ko diw daal di tudd turu jigéen ni ko diw dee taxawaalu ci taax yi sëriñ bi yónnee woo ko mu ñëw mu ni ko foo nekkoon xamul lu muy wax mu ni ko tuuba laa demoon te fekk demu fa sëriñ bi ni ko tuuba de des fay defaroo waaye kenn du fa yàqoo diw daal di tudd aw turam ni ma yaa ngi yàqu di wëreelu waaye na nga dem tuubaa boo demee na nga fa toog ba weer bi feeñ kookee ba mu dellu see sëriñ tuubaa xaadalawu la maxtaarloo ni ko na nga dem tuubaa boo demee ca ibra faati nga ni ko gonoom goneem yooyee ne leen boole yóbbu fa mat laamin gay mu xamal leen wér na sëriñ tuubaa xaadalawu la maxtaarloo bi muy jóge jolof am na ñaari soxna yoo xam ni daa wax ni nañu leen takkalu fas ñoo awee ci wetu njaamur Louga yoon wi daa sori ci jigéen mënu koo war ñu daldi leen di takkal boole leen ak ku leen sant mooy kuy dox ci seen ginnaaw di toppatoo fas wi wér na sëriñ Tuuba xaada lawo law maxtaar lawo mas naa wax sëriñ Mbàkke Juuf radiallahu taala anu Ibra de góor la mu ni ko waawaaw Mbàkke sëriñ bi ni ko bi mu jëmee ci man jommaluma waaye defe naa ni naxuma ko bi mu dikkee bàyyi boppam bàyyi ay mbokkam bàyyi yàlla ma ko bindoon ngir sama jëmmu jii defal naa ko loo xam ni moo ko gënal boppam gënal koy mbokkam te tàggaliwuma koog yàlla ma ko bind nga xamul ni bu ma woowoon ibrafaal mu ñëw ma ni ko yàlla mi taxoon nga di ma topp toppatuma ko du tax mu dellu ginnaaw ci topp gi mu ma toppoon waaye defe naa manit fay naa ko ndax bu dajale woon ñi mu àndal ñépp ni leen kee taxoon ngeen topp ma wàcc naa ko du tax kenn dellu ginnaaw wér na maa ngi leeral ni sëriñ tuba xaadalahu la maxtaalahu kenn mënu koo teqale ak sunu borom subhanahu wa taala topp ko itam mooy topp yàlla subhanahu wa taala may yu tiyaan rasula faqad ataa Allah la ca des ku ci ne ak ni ngay toppe ak ni ngay soppe murit bu nekk war na jéem a xool fa mu toll mu xam ni fii la toll muy jëf jëfiinu ko toll foofa murit bu deful loolu dana xeet walla mu wedd am murit ni moom ngir ñàkk dëppoo walla aw alam ñëw ci njàngale ñaar fukk bi ak juróom ñeent sëriñ tuba xaadalawo law maxtaarloo naa mas nay wax ba mu yàgg cheikh ibra faal radiallahu taala anu jug micciitu ciitu mooy yëngal saw làmmiñ ngir yéemu wala xeeb dara sëriñ bi ne xablaay yow sa waaju lu muy def noonu mu ni ko sëriñ bi nee na looy def nii maam cheikh ni ko li muy wax daa neexul sëriñ tuba xaadalawo law maxtaarloo ni bismillah laaj ko lu ko tee neex sëriñ abdullahi xaar radiallahu taala an ni ko sëriñ bi nee na lu ko tee neex mu ni ko ñi muy wax ñëpp booba sëriñ bi da doon tudd yonente yi alayhim salaam di nettali mu ni ko ñi muy wax ñëpp duñu dara moom rek mooy dara ñu ci des ñëpp ay jigéen lañu nañu dem tukki nañu tukki wér na sëriñ bi daa wutu yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama ak yonente yépp alayhimu salaatu wasalaam ni mu ko waxe binde ko noonu moo tax cheikh ibra radiallahu taala anu di wax lii waaye xe benn yonante taxul mu di ko wax sëriñ bi itam xam gi mu xam loolu moo tax du ko delloo ginnaw ci wax ji walaw alam sëriñ abdul ahad radiallahu taala anu bi muy toll ci jàng mas nañu ko andi ci sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaara lawo di ko xamal xelam mu naqari sëriñ bi dindi genn kala ci kala yi mu kaala won wax ni nañu ko yett abdul xaadir ñaan radiallahu taala anu mu dogal ko ko siiw na sëriñ abdul ahad radiallahu taala anu nee na ba mu ko solee lu ma fi gis xam naa ko te su ma ko fàttee dama neex ba tey jëfin wi nu xamal ni sëriñ bi ay mbiram takkuwul ci lenn ndax kiis li ñu ci gën a miin lu ñuy jàng lay doon wala lu ñuy naan wallahu aalam